bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin walsalaatu walsalaamu ala asrafi almursalin sayidina wa maulana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi lxurril mayamin bokki jullit yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara ci bis bu tedd bi di ñaan yàlla sunu borom tabaraka wa taala mu nangul ñu mboolem jaamu giñ ciy def ñoo ngi ziyaara ak di nuyu sëriñ bi di ñaan yàlla mu yàggal ko fi ba mu yeggale mboolem naalam yi dañ ànd koog moom mbokk jullit yi yonente bi alayhi salaatu wassalaam dafa am wàccuwaay bu rëy ci xoli jullit yi moo tax nag waxtu nekk warna na ñuy defaraat ay jikkoom ngir gën caa mën a roy ngir cofeel gi koy cof bëgg gën a yokk itam ndaxte ngir rek bëgg sëriñ bi radiyallahu anhu sunu bëgg ci moom gën a dëggu dana waral ñu gën a sopp yonente bi alayhi salaatu wasalaam gën a topp sunnaam sa ngir sëriñ bi sopp nu danoo war a sopp soppeem ba muy yonente bi alayhi salaatu wasalaam kon nag war nañu topp sunnaam ngir bëgg nu bëgg sëriñ bi gën a dëggu fi noonu ndaxte <coughs> bari waa na kuy wax ne bëgg na sëriñ bi te buñ ko laajee lu tax nga bëgg ko lu la mën a leeral lu leer ca muy wax te fekk na ci am na ci yoo xamante ni sëriñ bi ci boppam tontul na ko masalan kuñ ne lu tax nga bëgg sëriñ bi mu ne xanaa xool gi ma xool fa mu teg alquran ak nam ko bëgge woon dama ko bëgg ngir loola sëriñ bi la nee na loola doy na firnde maa nga ne woon huwa xalilun wa xabib lii muxniyan lii an tabib bihi yuxibu nii labib yatlubu xayra laqami ci alquran la doon wax ne mooy xaritam mooy soppeem te doy na ko walis muy wuti ab docteur bihi yuxibu nii labib nee na ku am xel ku nekk tey woote na daf ma bëgg man sëriñ bi xanaa xool gim kool ba gis fa ma teg alquran ak nam ko fonke mu bëgg ma ngir loola kon kuñ laaj lu tax nga bëgg sëriñ bi nga ne dama xool fam teg alquran ma sopp ko ngir loolu loolu tontu la waaye itam dama bëgg sëriñ bi ñu ne lu tax ngir ne dama xool fam teg yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo tax ma sopp ko itam loolu itam tontu la ndax moom al abdul xadim muy sëriñ bi radiallahu anhu fam tegoon yonente bi alayhi salaatu wasalaam kawe na dafa mel ne xasidaa gi xasidaam turu yonent bi te mooy muhammad alayhi salaatu wasalaam daf cay wax muy xasida gu gàtt nag waaye nataal na yonent bi wone na ko itam wone na itam fam ko teg mu ne man danna annaka tuxaakil bashara wal jinna wal malaka lan yu bashara nee ku yaakaar ne yow muhammad alayhi salaatu nuroo nit wala nga nuroog jinne wala nga nuroog malaayika lañ yu bassara kooko ko bégal mu mel ne kon gam la yonent bi ak ñett yooyu mu tëdd ci jikko ak bind dana waral ñu bañ a bégal kooka te jullit nag luy ñu bañ koo bégal war na koy daw mu teg ci nag Muhammad aleyka salaatullahi wasalaamu nit ku nekk am na kuñ koy gam-gamleel ñu naan diw sàngam diw sàngam la nuróol ci bind wala jikko wala diw sàngam diw sàngam la nuróol ci jëmmam wala jikko bam des yow xaaka siwaaka gayrahu min alwara fa anta xayru man ilaahi sawara nee na yowey ngën ji ku yàlla na mu teg ca ne yàlla la jox ci ngëneel loo xamante ni lu ne fàng la madda ilayka allahu fadlan dahra waaye moo la wammatal loo xam ne itam ba léegi feeñagut fuñ ko gis ku ko yàlla jox ku dul yow kama ilayka qaada ma lam yazhara mu teg ca ne la rek ak di wax say baax képp ku amam xel lott na ca loola ndaxte yoway ngeen ji aji bégle koo xam ne sant na borom bi tabaraka wa taala madxuka ajaza alladi tafakkura amala yaa xayra basirin sakra lii sa liggéey daal def nga ko te mooy dañ laa wooloo nit ñi ak jinne yi jëme leen ci yàlla def nga ko kon daawta lillahi al aliyil basara wal jinna anta xayru haadim basara muy nataal bu gàtt boo xamante ni ku ko xool rek xam fam tegoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam xam itam lu tax sunu borom joxoñ ko ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana yonent bi doy na leen royukaay الرسول ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول bismillahi rahmaani rahim kon ñoo ngi woon ci jikko yi nga xamante ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam am na ko yoo xamante buñ ko settantale sunu cofeel ak sunu mbëggeel ci moom dana gën a yokk bokk na ci jikko yooye lewet gam lewetoon bokkoon na ci ñi gën a lewet ci nit ñi moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak nam jàmbaare woon waaye ak nam wàcce woon boppam ba nga xamante ni lépp loo xamante ni yitteem la woon daf ci daa taxawal boppam ba ci aw dàllam bu yàqu daana ko defaralal boppam moom yonent bi aleyhi salaatu wasalaam yëreem yu xotteeku daana ko ñawal boppam daana dimbule waa këram itam ci seen liggéeyu kër ba yegg sax di toog ak ñoom ca waañ wa di leen jàppale ndawal ga ñu koy dagg te yonente bi alayhi salaatu wasalaam bokkoon na ci ñi gën a tar ci nit ñi ci kersa kersaam gu gu tara tar la amoon ndax doo ko gis mu mu mu jàkk nit ne ko kawu di ko xool daaw ko def ngir kersaam gu bari ga moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu nag muy jikko kawe yoo xamante ni sëriñ bi bëgg gi bëgg yonent bi alayhi salaatu yàgg nañu koo junju ca muqaddamatul amdaax fi mazaayal miftaax dafa wax ne tedd de bu doon ay yére ma dañ la ko dogal yow yonente bi nga sol ko nga neel itam bu fekkoon ay yére la sol nga ko kawe itam naka noonu yor nga ci ay jikko loo xam ne ku dul yow lott na ca labista siyaabal majdi wal fadli wal ula wa fiika min al axlaaqi ma ajazal kulla di wax na yonente bi ku yewwu lool ba ne jar sax nit ku yewwu la woon nabihun ajibun ku yéema woon ci bindam ak jikkoom du xayaa in muhaddabun borom kersa la woon ku yaru woon huwa naasu mu ne booy wut nit ku ne jar jàppal ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam huwa naasu wal mizaanu moom ko amoon équilibre la daawut ëppal ci dara waaye daawul yéesal ci dara waxuwal mu makkanu mooy kañu jàppandal nabihun ajibun du xayaa in muhaddabun huwa annaasu wal miizaanu waxuwal mu makkanu bila xishin ku laa laa biree mbindeefi la te du ko du ca rax dara lu ca bokkut alimun muallamun ku am xam-xam la waaye ku yàlla xamal la itam saxiyun bila mannin ko tabe la te du tiitaru wala muy ñaax du defal nit lu baax ba noppi wëlbatiku di ko nettli ngir puukarewu kalaaman yu layyinu ku daa nooyal ay waxam la te nooyal wax nag ak rafetal ko lu alquran yàgga dénkaane la ci wa quulu linnaasi xusna ak fa quulaa lahu qawlan layyina moo tax imaam malik ibn anas mi ngi ñuy nettali ci téere muwatta bi di wax ne sayidna isa bnu maryam alayhi salaam am na bis muy dox ànd ak saxaabaam ba yegsi ci menn mbaam xuux mu nar a jaar ci seen kanam waaye xool leen nam def dane sëcc taxaw moom yonente yàlla isa saxaaba ya toppoon ci ginnaaw taxaw mu ne mbaam xuux mi jàllal ak jàmm jàllal ak jàmm mbaam xuux ma jàll mu doog di wéyale aw yoonam ñam àndaloon ne ko yonente bi day yow sa mbaax gii ba ci rab yi da ko cay yeggalee mu ne ah kay bëggumaa tàmmal sama làmmiñ wii may waxee wax ju ñaaw kooka wuute nag ña nga xamante ni rab yi wóolootu leen ba fuñ leen seen daw te bari na léegi kon nag yonente bi itam noonu la daa rafetale ay waxtaan ay waxam moo tax sëriñ bi ne woon fam yeggoon ci ay maqaama moom xayrul xalqi mooy ngeen ji mbindeef di yonent bi alayhi salaatu wasalaam ku dul boroomam xamu ko xanaa lam nañ ci mosal ci suuratu najmi maqaamaatu xayril xalqi an xayri rabbihi muxayabatun fal taqra an suurata najmi mu waxaat feneen ne ko làq nga ci ay maqaama loo xamante ni benn maqaama jotu ko yawee leer ak képp kuy topp yàlla di naafila guddi di woor ba cëg xusta maqaaman duunahu kullu maqaam yaa nuura kulli aabidin qaama wa saam yonente bi alayhi salaatu wasalaam ku ko masaa woo ci lu baax mu wuy ji la moo xam ngay mag wala ngay gone ngay gor wala ku ñu yirif jigéen ju ko masaa loo suufe suufe suufe dana la taxaw déglu la miskin bu ko masaa woo itam dana la déglu daana mer nag waaye xanaa buñ ñu xottee war may yàlla waaye daawul mer ngir jëmmi boppam rek dëgg itam daf ko daa wéyal di ko nangu doonte ne loraa nga mën na caa juddoo dal ci kawam wala mu dal ci kaw saxaabaam ku ma saa xewle itam doonte ne ak céet la boo ko yëgalee da cay teew seeti ku wopp itam daana ko jaral mu sol aw dàllam dem fa gën a sori ci dëkk bi ku fi masaa bàyyeekoo itam buñ ko ko yëgalee mu dem topp sab néew julle la topp la bañ denc ko ku bëggoon bëggoon xet gu neex la waaye ku bañoon bañoon itam gu naqari la daana toog ak foqara yi ak miskin yi kenn daawul xeeb ku am lu baax ku nekk mu yéene la ko daawut beccingal kenn du tooñ kenn te ku ko tooñ itam boo sàkkoo ci moom njéggal mu jéggal la daana kaf waaye kaf ga lu muy bari bari du ca wax lu dul lu neex borom bi tabaraka wa taala daawud xeeb miskiin ngir ak ñàkkam wala woppi dëkkaaleem ju ko dal mësta ragal buurab àdduna itam wala nit ak àdduna ngir nguuram googee ak di ko si booro moo tax sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu wax ci wenn bu bayit woo xam ne daanaka mooy daj dëpp gi ca jës bul xulub wa huwa akmalul wara xalqan wa xulqan dahra wal mislu qattu lam yura walan yura fi siyami nee na moo gën a mat ci mbindeef yi moom yonente bi ca ko yàlla binde moo ci gën a mat mbindeef yi jikkoom ja moo ci gën a mat te ku mel ne moom deefu ko gis ca la weesu woon waaye deefu ko gis ci ñiy ñëw léeg-léeg sax ab jullit def ko lu ko neexul moom yonente bi wala ab yéefar def ko lu ko neexul bu ne ko tey ngaa ñaan yàlla si ba wàcc seen kaw day soppi ñaan googee ñaanal leen aw yiw ngir yàlla gindi leen moo tax li ko yéefar yi tooñ lépp ba génne ko fa mu dëkkoon muy màkka mu gàddaay ba mu demee ba dil siwaat am doole dana leen izhabu fa antumu tulaqa dem leen way leen jéggal naa leen boyal naa leen bu njëkkoon itam bañ ko sonalee ca taif ba malaayika ma ñëw ci ndigalal boromam ne ko borom bi nee na su la neexee ma fam ñaari doj yi këpp ko seen kaw ñu alku dana ko déedéet allahuma axfir li qawmi fa innahum la yaalamuun yow yàlla yàlla na nga jéggal sama nit ñi lii may def ak dima ko wax ci lu ma naqari ñàkk a xam rek a tax waaye buñ xamoon duñ ma ko def taxawaay boobu nag nuroon taxawaayu xaadimu rasul radiallahu anhu noonu yi liñ ko sonal lépp ak lim daj lépp fanweeri at ak ñett mu nekk ko ci seen loxo 1895 ba 1927 génnut seeni loxo lam daj ci ñoom ci wax ju naqari ak jëflante bu ñaaw teewut te mujjantal gën a ne afawtu anil aadaai turran li wajhi man nafaahum li gayri sarmadan lastu adfau jéggal naa mbooleem noonu yi yonente bi sa alayhi salaatu wasalaam itam su ma saa fekk mbooloo mu toog du leen jéggat day seet fa toogaay ba yem rek mu toog fa moo tax nag sunu borom tabaraka wa taala yàgg ñoo xamal nag melokaanam yooyu daal ne ko nooy gi nga nooy yow yonente bi ci kanam jullit yi li ko waral mooy yërmande yàlla fa bima rahmatin min allahi linta lahum ne ko bu fekkonte da ngaa naqari deret xat xol kon kenn du toog ci sag kanam ñëpp la fi daw bàyyi la fi nekkoon na koo xamante ni itam mësta ayibal aw ñam aw ñam buñ teg ci kanam su bëggee lekk su bëggut bayi waaye sax du wax nit ñi ne leen tax ma bañ ko ba ku ca bëggoon a lekk itam su bëggee day lekk loolu itam ci jikko yu rafet la fu masaa bu ay xale yitam luñ tuuti tuuti tuuti yonent bi day taxaw nuyu leen saafaanteeg ñoom moo tax nag Anas ibnu Malik ma yàgg liggéey ci këram nee na nekk naa ab surga ci kër yonante bi lu tolloog fukki at waaye nag bis naka tey maa ngi giñ ci yàlla ne fukki at yooyu yonante bi mosumaa wax ne ma yow Anas mosumaa def loo xamante ni naqari na ko ba mu wëlbatiku ne ma lu tax nga def lii yow Anas nee na sax léeg-léeg ma daa def man wóor ne juum naa ba lenn ci ay soxnaam di ma yedd waaye lam cey teg danaan leen daawuhu innama kaana haada bi kitaabin wa qadar bu ko ko jàppe xam leen lii mu def yàllaa ko dogale nii rek waaye nekkutoon loo xamante ni ab jubluwaayam da ñu xam ne kon la ñuy tëjee waxtaan wi mooy Sëriñ Tuubaa day yàgg nañoo joxoñ yónnante bi ci bëgg ni mu ko soppe moom ñu roy ca ba ne woon muhammadun misaaluhu lam yati fii ma mada wa abadan laa yati nee muhammad sallallahu alayhi wa sallam misaalam ña fi jaaroon ku mel ne moom amu ci waaye ñi ñëw ëllëg ku mel ne moom du ci ñëw sabata anna rabbana lam yuridi mislan lahu fa misluhu laa yurid yàlla bëggut ku mel ne moom mu am moo tax ku mel ne moom du ami qul qadamaahu fawqa kulli raqaba minhu staara al kulla man qaba moo féete kaw ñëpp te ku baax ku ne langa baax le moo ko abal cala nekk nag bane ne bëggatuma dara njaboot sax bëggatuma ko ngir bëggatuma koom-koomu àdduna ngir bëgg gi ma bëgg yonente bi alei salatu wasalaam moo remplacé loolu mahab na habatiyal muxtaara sayidana xubbil maxaaniya wal ahlina wala da kon dañuy tëje mooy sofe cofeel googu ñu war a bëgg yonente bi alei salatu wasalaam te bul dara itam ñu war koo roye ci Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu yonente bi nee na woon laa yuminu ahadukum xatta akuna ahaba ilayhi min walidayhi wa waladihi wannaasi ajmain kenn ci yéen la ak ngëmam du di mat lu dul ne maa koy gënal man yonente bi maa koy gënal boppam gënal ko ñaari wayjuram gënal ko njabootam gënal ko mbooleem nit ñi waaye kon nag mbëggeel googu mooy lan mooy ngay topp sunna si yonente bi alayhi salaatu wasalaam qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabiuni yuhbibkum allah jaalani llah wa iyaakum min ahibaihi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nañu yàlla boole ca soppeem ja wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu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 fattaqwa ibaratun an imtisali awamirillahi taala wajtinabi nawahihi ijtiqadan wa qawlan wa fi'lan zahiran wa batinan wa'lamu anna ad-dunya laysat bidaari qararin lakum fasta'iddu lil mawti faqad awallakum waqad qaala sallallahu alayhi wa sallam akhiru min dikri haadimi lahaati xataa yanqatia rukuunukum ilayha alaa wa innakum fi yawmi amalin laa xisaaba fii alaa wa innakum tuusikuuna fi yawmi xisaabin laa amala fii wa maa tuqaddimuu li anfusikum min xayrin tajiduuhu inda allah فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين الحمد لله غافر الذنب ساتر العيب قابل التوب شديد العقاب فاتح أبواب الرحمة فاتح أبواب الإجابة لمن دعا لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب fa yaa saada man sabaqat lahu lxusna wa li taacati llahi saa nashhadu annahu llahu alladi fataxa bi xaatimi alambiyaai min alxayri kulla baab salla allahu wa sallama alayhi wa ala maa lahu min al aali wal asxaab amma baadu fa yaa ibaadallah man araada an yakraca fi manaahili safaa falyattaqi llaaha walyukthir min alsalaati wassalaami ala sayidina muhammadin almustafaa faqad amarana allahu bidalik linaala ajran caziima فاعمروا بذلك هذا الشهر الجليل وبالنوافل الطاعة وبما أمكن من الإحسان بقدر الاستطاعة قال عليه الصلاة والسلام الجنة لكل تائب والرحمة لكل واقف fa tawbatu ila allahi hiya miftaaxu abwaabi arrahmat wal inaabatu ila allahi subhanahu hiya asaasu alibadat walqurbat lam tazal manhalan kariman yatawaaraduha alasfiya wa sharaaban tahuuran min sharaabi alaarifina billahi wal atqiya وهم يتضرعون إلى الله بالإنابة والاستغفار ويمدون إليه أكف التذلل والانكسار تائبين له خاضعين كما قال تعالى ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين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 ashhadu an la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 فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها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 asalaamaaleykum